parce que duñu bëgg aussi seen visage feeñ wala yooyu parce que aussi sutura sutura mais da ci am solo mais comme ay nit ñooy participer aussi day baax comme ay nit ñooy participer aussi day baax euh, booy booy booy def dara nga wan leen yéen li ngeen di participer fii lay dugg bon jot nañu euh, déjà waa nitu dëgg mbuur jot nañu leen envoyé ci xaalis bi ñu préparer préparé ñoom aussi pour distribuer waa nitu dëgg Thiès aussi incha allah ñoom mercredi nañu distribuer ñun aussi def nañu démb euh, mooy vidéo yooyu ngeen di gis ci suuf noonu. jot nañ fekk ñu jàppoon imam bi ñu jot a distribué côté Rebeuss mais film yi da gis ni euh, doo mën a filmer carrément parce que il faut mu am benn sutura bu ndaw bu ci am dañuy filmer rek parce que mënul ñàkk parce que aussi ñi nga xam dañoo participer il faut ñu gis aussi fan la seen xaalis di dugg xam nga euh, wax rek ni distribution ndog yi euh, chaque mbuus bu nekk day am pain wala moom keek dina am stick café am meew dina am ndox xam nga Euh, dina am lo xamni da daal nit ki ndogu fu mu ko fekk rek lu mu ci def rek inshallah dina ndogu te da dañu gis boko tege rek beaucoup de gens dañuy ñëw profiter pour jël pour jël ndogu ci donc di ñaan rek dina ñaanal yalla képp ku ci passé yalla na yalla defal yool bi tax nga def ko ñu def ko dimbali suñu mbokk sénégalais yi nañu jaaykat yi jaaykatu yi jaakatu yëre yi jaakatu casque yi euh, ñi nga xam ñoo jaay ci mbedd bi ñu ci bari dañu gis ni duñu am fu ñu ndogo euh, yàlla na leen yàlla fay ñëpp yéen ci participer vraiment ne distribution ndogu yi

ñu xool naka la ñuy def ba ngeen mën a jàppale nit ñi nga xam ñoo nekk foofu ñu mën a ndog jërë ngeen jëf saaf salaam ala rasulullah